yàllaaw bil mustafaas sindiidi yàllaahu wa bi xalilika fukkeelu xar baax ak juróom ñett ci téere bii di minaxul miskiya fil xawaarixil makkiya sëriñ Mouhamadou Lamine Diop radiallahu taala anhu nee na bokk na ci xar baaxi sëriñ bi loo xam ne sama benn xarit bu bokk ci waa daymaan yi ñu di xabal lum lu bàyyiw moo ma ko njëkk a nettali ginnaaw bi menen mbokk mu ñu wax Sidi Muhammad ibnu Aflul nga xamne mom fekke won nako ko netal it na ma sax Abdul Wadud mi nga xamne ci mom la xissa bi xewon mu netalil mako ko Abdul Wadud mom nak mi ngi bokkon ci haji yoni yi xissa bi nak ni mu deme moy mi ngi xewon ci njaareem muy bis bo xamne serigne touba da don defar jenn ci jakam yu ndaw yoy nga xamne ño nekkon ci wër kër gu maggi ci njaareem Abdul Wadud nak moma netali nema, ne ma bi ñuy defar jàkk ji serigne touba da ko wo jox ko ndigal ngir mu natt mihrab bi jubale ko khibla Sidi Muhammad mi nga xamne najat fekke won na jotaay bi neena ma bi serigne touba joxe Abdul Wadud ndigal lolu Abdul Wadud dene beret yakamti lool ngir jefe ndigal liko serigne touba jox Sidi Muhammad ne ma man nak boba ma ngi wax ci samam xel ne ak Abdul Wadud joxe ngant ci lii ko bi def Sidi Muhammad yit neena li tax mu don xalat lolu moy da don bañ mbokkam momu joom ci liko serigne touba don doon waaye nee na bi Abdul Wadud demee diir bu gàtt la fa def rek dal di ñëwaat ci ñoom booleeg nag di yéemu lool waaye Seydi Mouhamed moom nee na booba man maa ngi am kersa te rus naa wax Abdul Wadud dara waaye daal maa ngi doon ragal mu juum ci lool ci lim doon def waaye bi Abdul Wadud ñëwee dafa mel ne dafa xam li nekk ci sama xel daal ne ma man de tey damaa yéemu lool ndax man daal bi ma taxawee ba fas yéenee jëfandigalul ndigalul sëriñ bi bi ma tàmbalee natt la gi rek. ci la ma sunu borom muril kiiraay li doxoon sama diggante kaaba gi yépp ma jàkkaarloog màkk kaaba gi ma daal di rëdd mihrab bi ni ma ko sëriñ Tuubaa digalee ba mu ne màkk jàkkaarloog kaaba ga waaye Abdul Wadoud nee na bi ma liggéeyee loolu ba noppi rek dafa mel ne sunu borom dafa dindi kiiraay ga muuraat ko ba gisatuma dara sëñ Mor Lamine mu ne kon loolu nga neelul yàlla la tey karaama ci diggante sëriñ Tuubaa ak taalibeem bu dëggal boobu di Abdul Wadoud ba tey sëñ Mor Lamine nee bokk na ci xarbaaxi sëriñ Tuubaa genn guddi goo xam ne keroog Serigne Touba daa toog fi barab daal di digle nañu nañu toxal mihraabu jàkka ji mu gën a jublu xibla daal ne leen dama bëgg ngeen jubbantil ma mihraab bi mu ne diis jëm nii ci wetu càmmoñ gi Sëñ Modou Lamine nee na biñ ko ko defalee ba noppi sëriñ bi da koo xool ne leen mihraab bi de fi mu nekkoon jàkkaarloo woon naa kaaba gi sax waaye fii mu nekk nii nag moo gën ndax fii moom dane mag jàkkaarloog digg kaaba ga Sëñ Lamine nee nii daal la nu ko sëriñ bi waxee ma dégg ko te kenn nettaliwu ma ko bakam bilal kulama dan wa naqsidu waab lana kulama naxtaaru yàlla